salaamaaleykum waa Sénégal maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar euh, di nuyu yéen waa presse yi ñi fi ñëw dalal ñu dalal leen man je me présente Mar Diokh man maay secrétaire général équipe Pikine Falaye Baldé euh, tey nag dañoo amoon benn booba léegi làmb bëri na coow yu ci nekk mais ñun comme que dañoo nekk ci benn cadre bu formel mu doon bugg ñoo wax de manière maanaam loo xam ne dañuy wax ñuy dañuy contredire wala ñuy wax ak génnaat di contredire suñu bopp moo taxoon. on les a traités en interne ba ba wax Nous convoquer la presse on va faire un euh, communiqué de presse comme ça nous yëgandoo ko déjà euh, j'ai à ma gauche euh, Ibou Faye bokk ci staff Ama Baldé Ama Baldé nag nekk athlète sur équipe Pikine Balde. Il y a aussi Vieux qui est le chargé de la communication au sein de l'écurie kon donc il faut donner à César ce qui appartient à César donc mom kon ku communication bi déjà ñoom dañ def communiquer communi communiqué euh, benn communiqué officiel bo xamné dinañ relater décision yi nga xamné mom la équipe bi jël ak tamit li fi xew tamit par rapport ak euh, actualité bi inshallah allah rabbi loolu daal moo nekkoon lu tax ñu ki ñu ñu jotaay bi wa ma ngi leen nuyu ñep di leen ziar ay wa bismillah contacté ñun à notre niveau concerté nañ ko avec un certificat médical en bonne et due forme ñu yóbbu ko au niveau du CNG CNG def une contre-expertise xool ko constaté blessure bi loolu moo comme combat bi ñu repoussé ko ba ama certificat de guérison mais ku ne xam na ni Ama il est resté quatre ans sans lutter kon tey il gënoon a yàkkamti bëre ko ñëpp mais jàmm ak pexe yàlla ak dogalam wax dëgg yàlla mu nekk nit ku gëm yàlla nag mu gëm ne lu ko dal nii nattu sunu borom la sunu borom mooy tege nattu te moo koy teg kon ñu ngi sant yàlla ba ñu nangoo blessure bi jël ko avec philosophie ndax fii ku ñu fi nekk ñëpp xam nañ ne nit ki mën na bëgg bëre nit ki mën na bëgg xaalis mën na bëgg kër mais yàlla mooy dogal yàlla moo dogal ne combat bi waroon am si le 5 ñu sante ko yàlla. moom bi toog quatre ans bëriwul fekkee moo ko mën a jël avec philosophie sante ko suñu borom asamaraa ñun ñu ànd ak moom donc ñun amuñu benn benn pression par rapport ak dara ñu ngi xaar mu mi ngi traité wu su wéree du ko certificat de guérison incha allahu rabbi lu ci topp ñu xam ne loolu yàlla dogal mais ñu ngi naan Sénégal yëpp ñu ñaanal ko yàlla yàlla delloo si wér-gu-yaramam bu mun a entraîner mun a bëree parce que ñëpp xam nañ ne Ama Baldé combat souvent Sénégal nam nañ ko bu dee bëri yu neex lay bëri combat combat yu gaaw macha allah te it indi la Pikine ndam bu ne kon loolu nañ ko sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax bon tey nag waxtaan bi ci ñaari pàcc lay nekk mu li mu mën a communiquer rek mooy juste que ni mbër bi mi ngi traité wu su wéree ne doo certificat de guérison li jëm si combat yi moog Gris Bordeaux ak waa ci am yëpp sunu mag. suñu kilifa ibu na ci indi ay éclaircissement yu yu leer suñ jógee fii ki xam suñu position par rapport ak coow fi am lépp parce que tey on va éclaircir des positions que Pikine après suñu ñu jógee suba ñu mën a ku nekk libre def li nga bëgg def incha allah mais ñun moom suñu problème principal mooy Pikine am jàmm te Pikine jàmm ji Pikine moom mooy que mbër yu mag yi su ne mbër bu mag tey. dañuy wax Ama Baldé dañuy wax Boy Niang dañuy wax Eumeu Sène ay mag ay rakk lañu te réeréwuñu ñuy wax daan ñu gisante donc lu ñu bëgg mooy Pikine doon benn dama wax souvent may leen dimanche wala samedi AS Pikine si football waa ko ñu Boy Niang waa ko ñu Ama Baldé waa ko ñu Eumeu Sène ñoo de ñoo dee esat ñun drapo vert moo ñor leneen ñoruñu Pikine am ndam moo ñor loolu kese moo ñor te comme li ñu wax ne communication communication bi yàgg maa ngi yemale foofu jox euh, sunu mag Ibou Faye mu indi éclaircissement par rapport ak combat Ama ak ak combat yeneen combat yoo xamante ni war taxaw sunu kanam incha allah Ibou kaddu ak seen sant di wax ci tey turu Ama Baldé ak écurie Fallaye par rapport ak li fi jot a xew bon Ama yàlla dogal na jël na combat combat bi duré na 4 ans te yàlla sunu borom dogaloon ñu war a bëri combat boobu kon ñun combat boobu bu ñu toogee ba président CNG génn. am ci position xamal ne modlo Lo mën na jëli beneen combat parce que Ama mu ngi ci contrat mais tamit dafa am blessure bon position bobu dañ ko ci comprendre parce que xeyna na am lenn fi jot xew ci diggante promoteur bi teggone combat am ak modlo ak yenn membre chaîne CNG ñu nekk ci côté justice bon duñ ci mëna sori quoi mais li ñu xam té mën cee wax moy ñun li ñu ñor deug deug deug té ñu nekk ci du combat Ama ak modlo komba Ama ak Gris Bordeaux la loolu la ñuy préparé loolu la ñuy wax di coow li bëri bëri nag Pikine ñuy wax combat Modou Lo Boy Niang combat Modou Lo Boy ñun loolu amuñu ci benn problème le lutteur en personne moom xamal ma ne ma komba boobu awma ci benn problème te duma ci am benn problème booy Niang su gisee lu ko jaar na jël combat bi mu bëre ko vraiment ñu ko souhaité bonne chance te ñun amuñu ci benn problème aussi écrit Fallaye ni ciy wax nak peut être dañoo am seen position personnelle mais écurie bi limu wara wax mom lay wax moy ama personnellement wax na ma moom ci boppam combat bi amu ci problème amu ci ben détail amu ci dara combat bi bu ñu gisee ñoom lu ko jar nañu ko jël te da leen di souhaiter bonne chance pour que combat bi mën a jeex ñun ñu jublu suñu combat parce que fu toll ci contrat lañ nekk ci lool dal lañu ñu bëggoon Sénégal bi xam ko ok jërë ngeen jëf merci. Ibou Faye membre staff Ama balé, merci beaucoup. Hola.